yor beneen nombal tànk nag na nga ko gaaw tekki Khady Diène Gaye nag mooy soxna si njëkk jiite département bi ñu dénk wàllu sport le quotidien yëglekaay dellu soit ci gouvernement bu yees bi nga xam ne rek Ousmane Sonko taxawal na ko yéen kaay di fësal nag ne waa Pastef ak ñii di alliés nag gis nañu ci seen bopp ñeenti soxna nag ñoo bokk ci équipe bi juróomi priorité nag jamono ji moo gën a soxal gouvernement bu yees bi bés bi le jour dellu soit nag ci gouvernement boobee nga xam ne rek démb lañu ko taxawal ci ñaar fukki jëwriñ ak juróom yoo xam ne rek ñoo fas yéenee doxal ñaari généraux ñu daat leen di jiital leader ca forces armées ak ca ministère de l'intérieur mu di Jean Baptiste Tine mi nga xam ne rek delloosiwaat nañu ko ngir mu doxal revanche bi nga xam ne rek Ousmane Diagne jëlaat na ko mu mel ne nag waa Pastef ñoom jot nañu seen wàll ci nar wi El Malick Ndiaye Birame Souleye Diop Balla Moussa Fofana Daouda Ngom Abdourahmane ak Cheikh Diba mi nga xam ne rek moom la ñu jiital ci bopp économie ak finance ñoom ñëpp nag jamono ji ñoo fas yéene doxal Al Amine Lo ñu daal di koy toftal ci secrétaire général bu gouvernement l'info yëglekaay daal di def taxaw seetlu moom itam ci gouvernement bu yees bi ñu tax taxawal ci réew Sénégal yéenekaay bi ne Ousmane Sonko def na benn acte nag mu jëm ci wàllu rupture bi nga xam ne rek moom la ñuy xaar ci ñoom gouvernement boobee ñu taxawal ni ki démb nag ëmb na ñaar fukki jëwriñ ak juróom juróom ci ay secrétaire d'État ñu nemmeeku nag ci département bu ministère des forces armées ak bu intérieur nag ay généraux yoo xam ne rek ñoo wéy di ko doxal mu bokk ci Jean Baptiste Tine nag ak ki nga xam ne rek moo di Biram Diop Serigne Gueye Diop ñu daal di koy dénk jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce Abdourahmane Diouf yore lu jëm ci wàllu enseignement supérieur Bamba Girassi ñu daal di koy dénk wàllum éducation nationale Ousmane Diagne yore wàllu justice Ousmane Sonko di xam xamle ci biir yëglekaay bi ne gouvernement bi ñu taxawal nag rupture moo ko tax a jug waaye tamit nag indi ay tontu ci li nga xam ne rek moom la askanu Sénégal di xaar ci ñun nag jaarale ko ci ay orientation ak instruction yoo xam ne rek dafay bàyyeekoo ci njiitu réew mi ngir bu ko defee nag gouvernement bi nga xam ne rek moom la ñu daal di taxawal mën a joxe ay résultats ci juróomi ponk yi nga xam ne rek moo ñu gën a soxal ci jamono ji les éco yëglekaay dellu siwaat ci gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye fay yéenekaay bi ne Sonko ma ngay gën a wone ab xarañteef ñaar fukki jëwriñ ak juróom la tànn nag ak juróomi secrétaire d'état yoo xam ne rek am na juróomi soxna département bu intérieur forces armées ak wàllu justice nag yéenekaay bi di peeko les surprises du chef Walf Quotidien dellu soit ci formation bu premier gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi ne ñëpp ànd nañ na gongo ay généraux ñu tànn leen nag ngir ñuy doxal jamono ji lu jëm ci wàllu kaaraange biir réew mi fi mu toll nii nag Ousmane Sonko daal dinay sàkku nag képp ku yoroon beneen nombal jeexal ci ni mu gën a gaawee libération de l'histoire ci boobee gouvernement ne général Birane Diop moom la ñu dénk wàllu forces armées Ousmane Diagne ñu dénk ko wàllu justice Jean Baptiste Tine nag jiite wàllu intérieur mu ne nag dellu siwaat nañu nag ñi nga xam ne nguur gi fi nekkoon dañoo jëflanteeg ñoom am ak ñoom i jaar-jaar ba dàqoon leen ci seeni poste libération nag dellu waat ci kenn ku nekk nag li waraloon nag nga jote woon ak mag Macky sàll ba waral nag ñu daal di tekki sa nombal tànk Vox Populi nag ne lu rëy mi ngi xaar gouvernement bi nga xam ne rek ku ci nekk nag jox nañu place bi mu yellool ci boobee gouvernement de rupture bi nga xam ne rek juróomi ponk yi rek moo ko tax a bokk na ci doxal lu jëm ci wàllu bonne gouvernance wàllu proximité innovation ak efficacité lépp nag ñu daal di koy jaarale nag ci bëgg-bëggu askanu Sénégal enquête yëglekaay ne Ousmane Sonko nag jamono ji ma ngay marqué empreinte am ginnaaw bi ñu gisee ay kanam yu yees na ci gouvernement bu yees bi mu taxawal nag bu weesoo général Jean Baptiste Tine ak général Birame Diop mi nga xam ne rek moom Macky Sall dalee na dàqoon ci nguuram addu ci source a moom nag tey jii dellu si waat ñëwaat na ci faatu ki nga xam ne rek moo di Mouhamed Boun Abdallah Dionne yéenekaay bi di xam ne ni nag ñeenti fan ginnaaw campagne électorale bi nag résultat yi nga xam ne rek moo tukkee ci radiographie bi mu defoon nag amut lenn lu mu wone ci wopp ji mu doon doxaale loolee moo waral nag mu daal di amal ab message jëmale ko ci xaritam bii di Thierno Lo ngir nag rassurer ñi nga xam ne rek moo di ay jegeñaaleem ak njabootam yi nga xam ne rek ñoom la bokkal langue politique moom Boun Dionne nag yëglekaay bi di xam ne ni nag daan na wax ne amut benn xaar ma yàlla ak ñi mu bokkal langue politique gi nag ñoom ñëpp la amal jàmm jàpp na ne nag amut noonu te respecté na ñëpp ñi nga xam ne rek ñoom la bokkal langue politique gi yéenekaay bi dellu siwaat nag di ñu xamaleeg Mouhamed Boun xam ne rek moo wuy ji boromam ginnaaw feebar bu ko tëraloon ne moom dafa ñàkk ñaari waajuram ci ab l'accident jëloon na benn ci ab réewam nag daal di koy jox soxnaam Sidi Kati Dionne feelu ko ne Sénégal nag jamono ji ma ngay jooy ki fi nekkoon élimaanu jëwriñam Vox Populi nañu bi nag ña ngay rendre hommage bu am ne nag